ñol ma lay nuyu di ziar di la di jox sa way wa Ndeya sama rakk ma ngi lay fay di contane di contane sa interview bi nga def ak man may sañse bi rafet na machallah allah. <laughs> bi mom xam nga rek wa ginaaw raaya fa jaar ñol tay ñu gis la tay ci li nga xamantene moy soirée te Ndiol rarement nga koy gis ci ay soirée yi. la man mom rarement lay ñew ci ay soirée data yi mais xam nga tay bu ne géwélee xewle may dom pour gewel c'est normal ma rawati rawatina xam nga ñuy sargal makki te ku ne kuy sargal Macky sama rakk jee def single boo xam te ni da ca way Macky Sall moo tax ma ñëw pour accompagner ko def playback mais dëgg neexut gars yi tamit ñu ngi leen wax ñu xaar Dikoon bi deuxième saison baa ngi ñëw. Ah, kon kon ñu xaar leen kon yéen waa Dikoon. si si dañoo yaakaar ne na. waaw mais day amaat deux deuxième baa baa ngi ñëw si. ah kon ñi naan kon jeex na ak mënuñu duñ dem fenn. non suspense dem moom dem nañ ba dem nañ ba pare ndax Dikoon àdduna bi ko xam waaw deux na mënoo lim benn série si Sénégal te du limoo di kon waaw loolu dafa am loolu koy déggoo moom marqué mooy premier film film boo xamante ne moo am danse di kon moo ko ñu ko def xaar la ci lan waaw man moom lu bees sax lu bokkul ak di kon loo xamante nii rek dinañ gis bande annonce bi léegi léegi léegi ci YouTube bi incha allah ñu ci tuuti non wax feeñ gars a bu ci xamee foo jëm doo egg yaa ma gën a xam ñun nga man ngay ñama kenn déggul mais yow xam nga ne njool dafa bari facette macha allah ah, na xam nga def taj taa rek bu defee bu affaire yi nga ñëw ñu def émission bu rëy ak waa Pikine TV ay xale yu am jom man li tax maa Pikine TV neex ma ay jeunes laa fi gis. te ay jeunes ay jeunes moom souvent lu ñuy def ànd déggoo xam nga da nga xam ne lii day dem li ma ci gën a neex booba léegi ñu ngi liggéey kenn sëqatul kenn waxut est-ce que yi ñu ngi nooyi laay wax. moom maa ngi soog a nooyi. <laughs> waa dëgg du neex moo tax ma ne liggéey bi sérieux na quoi. waa Pikine TV lañ maa ngi ci biir Pikine maa ngi ci biir man. waa aar bi ci Pikine na xam nga Pikine moom bu ñu nee Pikine rek dana naan ville culturelle la ndax macha allah fii la lépp di jógee sama yaay ji toog rek bu la bu fi sàllar ñu koon dëkk bi tas nga ñëw njool mi ci théâtre bi mi ci danse bi xam nga mi ngi ci mi ngi ci musique bi gis nga. voilà man mi xam naa ko. c'est problème dafa bëri ay ay ay jeunes talents yoo xam te ne dañu bëri ay facettes yu jógee ci Pikine fii. te li ñuy waajaat di ko defaat doom Pikine dañ ci saf saap ci beneen facette lañ koy defee. Ah, waaw waaj leen xaar leen. waaw Pikine boo bëggee dégg-dëgg. Pikine fu mu sëqatee Sénégal soj na ndax Pikine moo war aaru Sénégal